ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew. loolu yoon wi moo la ci xawale ndax boo yoon boo ko defutoon da nga gëlëm wala nga wuuti weneen yoon waaye ñoom de gëlëmuñ de wuuti wuñ weneen yoon itam. yoonu seen bàyyi rek lañ topp lam bëggoon moom lañ bëgg la nga xam ne moom lañ maam doon sol sax moom la ñoo sol la mooy wax ak lam daan wax ak doomu aadama it moom lañ bëgg day wax ak ñoom lam bëgg ci jullit ñi ñëpp moom la moom la bëgg ci ñoom lépp lu mu bëgg moom lañ bëgg kon nag nee na ñoom de ñu ngi tagg Mawlana Cheikh Ibrahima da ko sant de ñu ngi sant seen baay de di sant mbooloo mi de sant ñep de gërëm ñep kon bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salam ala man nabiya. La man nabiya baru. بسم الله الرحمن الرحيم سمينا مغي جان حديث جابر بي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده نينا رويا سولونا عن جابر صحابه قاص لا صحابه يونتي محمد عبد الله موي بايام موي بايام انصار يو مكو جور وا مدينه mu ne radiya yal na gërëm allahu yàlla anu ci moom xaala wax na moom jaabir ne saaltu laaj naa rasulallahi yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam moom jaabir yonent bi tontu ko ne ko an awwali shay'in ana lan la njëkk bindi moom yàlla subhanahu wa jaabir laaj na yonent bi ne ko yàlla njëkk lan la njëkk a bindi xaala yonent bi tontu ko kooka lam njëkk bindi moom yàlla subhaanahu wa taala huwa lam njëkk bindi noora nabiyuka sa leer ak bi la yàlla njëkk a bindi yaa jaabir yow jaabir mu koy tawkiit da ko xamal ne mbir mi lu dëggu la mu koy tawkiit da ko xamal ne mbir mi lu dëggu la ko yónente bi ko yaa jaabir sa leer ak yónente moom la yàlla njëkk bindi yàlla bindi na ko te kum bindi ca leer ga bépp sujub bépp yiw mu bind ko ca leer ga fa xalaqa mu daldi bindi boobu doo gannaaw غناو هيو كل شيء بيبدار كل شر بيباي وقت وقت بيني اقامه ولا سخلكو قدامه في مقام القرب في مقام جيجي kinnaaya la ne mu ngi jàkkaarloog leer gi isna azra alfa sanatin mu jàkkaarloog moom fukki junne xat ak ñaar ak ñaar fa jaaloo topp mu def ko def leer ga arbaata aqsaamin ñeenti xaaj fa xalaqa mu daldi bindi aras aras من قسم من تخاج بوب مانام جريم بوب لا نيو دبا خراس مو بنديكو تام والكرسي مؤمن جرم بو من قسم من مو بنديكو تخاج وعمل وحملة العرس اك ملائكه خمنا نيو عين عرس مو بنديكو جام خاج اك ñe xamna ñoo amé khasiyatu ñi ñi nga xam ne bu fekkee kursi yi dafa am caabi ña ko amee mu bind leen ci ab xaaj ñetti xaaj yooyu jeex fa aqaama mu taxawal xisman xaaj ba al al arbaati ba di ñeenteel gu génnee ci xaajam ñeenteel taxawal ko fi maqaama xurbi bi maqaama xubbi ci maqaamam cofel cofeel moo di bëgg isna asara alfa fukki junne at ak ñaar fa jaxaloo topp mu defati ko su ma jaxaloo topp mu defati ko arbaata aqsaamin ñeenti xaaj fa xalaqa mu bindi xalama xalima ga mooy lu ñoo bindee moo di xalima لولا دخنا با بيني خلي ما نك ارا من قزم انتقاج على وجهي موم غاي ميغا خامني موم غاي فوب خلي بغي دجي تك مو بيندكو تي اب خاج حاجنا مو بيندكو تي اب خاج فاقام متخوال قسم خاج با رابع بدار نينتل في مقام الخوف في مقام برغل nga xamne dang ko wek te doo ko ñeme taxawal ko isna asara alf sanatin fukki jinne hat ak ñaar suma ma arbaata aqsam mu defete ko ñeenti xaj mu def ko ñeenti xaj fa xalaqa mu bind malaayika malaayika ya min qismin ci ab فقلقم بني اسم سجنتبه من جسين جاب قاج وقلقم مدل بني قمر ويروي جاب قاج والكواكب او بدوي من قسم جاب قاج متقوال قاجم نينتل بي في مقام الرجائي في مقام ياكار لو بغرك فوق ياكار كو fukki junne at ak ñaar suma jaalo jaaloo mu def ko arbaa ajsa'in ñent xaj fa xalaqa mu dal de bindi al aqala khal min jusin jab xaj wo woo ak lawet wa elma aqam min jusin jab xaj asamata wala asamata ak muccu وتوفيقي أكدبو من جوسن جام قاج فأقام مدل تقول جزء الرابع قاج من تلبه جزء خاج الرابع بدا جنيتل في مقام الحي في مقام الكرس لو حرث ذك دنكو سيد سقول na ko xere sa xol mu nek fukki junne ak ñaar mu dal de set nak góogale leer fa tasa fantasara mu dal de xol góogale leer fa talsa mu dal de set khazim ma nooru boobu la xeej saalika noori góogale leer haraqan mu nek ay ñak ñak fa xadara la dal de toog fa maanaam ci la toog téeméeri junne toq-toq ak ñaar fukki junne wa isrina alfan ci ay لولا موي عدد الانبياء اك مرسلين موي تيمير جوني اك نيار فك جوني اك نينت اك نينت جوني خاطرن تاي توك توك فخلق مبني الله يالا تعالى كوينه من كل عرق جبب توك توك min kulli xatarin ci bépp toq-toq. ngi lay dégg ngi lay dégg maa lay dégg. Hmm. noo nooru na bi roohu roohu yonente yi. roohu na mooy ñuñ solo ak roohu ñuñ yónni. xam nga moom nabi mooy kee xam ne dafa jege yàlla te xam ko te ragal ko. rasulu nag mooy ki nga xam ne dañ ko yónni ne ko demal ci nit ak nangam ak nangam wax leen nangam maanaam fa nafasa dal di nokki an waaw an an waawul an bi nokki fokki fa xalaqa mu bindi allahu yàlla mi an fasim ci seen nokki ya nooru arwaahi awliyaa yi روح ولي وسعداء وقوي تقي وسهداء وقوي سيدي ومتين أقوي توبي من المؤمنين تجلني إلى يوم القيامة بكرة بسبنج نينا wax ji yonent bi moo koy nettali jaabir yonent bi nag da ko rappelal ne ko falaar su asar asar wal kursi ak kursi yu min noori ci suma leer gi lañ bokk wa kuróobi yoona malaakay kuróobi yoona yi wa ruuxaani yoona min malaayikati ci ay malaaka min nóori ci suma leer gi lañ bokk wa malaayikatu samaatu saba malaakay asamaani juróom ñaar min nóori ci suma leer ci suma leer lañ bokk wa jannata ajana wa maa fiyaa ak la ci nekk mi ne niami ci xewal min noori ci sama leer gi lañ ko bindi wasam sa jant bi wal xamaru ak weer wi wal kawaakibu ak biddi yi min noori ci suma leer gi lañ ko bindi wala aqalu xel wa xel ma aqam wa tawfiq ak dëppoo min noori ci suma leer gi man yonent bi lañ ko bindi wa arwaahu ambiyaay ruuxu ñuñ solol ñi wa rusli ak ruuxu yonente yi min noori ci suma leer gi lañ ko binde wa suhadaa wa seydi wa saadaay ak way tax yi wa saalihoona ak ñu baax ñi min nataa iji noori ñu nga bokk ci suma ngirtee leer ci lañ ko binde suma xaaral ko topp mu bind laaw yàlla is naa azra fukk ak ñaar hijaaban ci ay kiidaay sa aqaama mu taxawal nooru leer ga ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew